xalifa maa ngi lay nuyu bu baax a baax te di rafetlu sa tànk fii ci ndakaaru ma yaakaar de dina doon barke ci ñëpp fii ak li ngeen fi tabax muy magal yàlla doon màndarga ñi ñëpp maa ngi lay gërëm ak sa taalibe yëpp te di la wax ne sunu diggante